ñu ngi leen di nuyu di leen dalal fii ci Masaalikul naan am mbégte lool ci jotaay bii nga xam ne moom lañ fi amal ngir wane liggéey bu am solo bii nga xam ne ñu baree bari tey gis nañ ci doon nañ ko dégg waaye defe naa ni mu leere tey ci seen xel leerewut noonu loolu mooy wane rek importance su média mooy wane ne média lu munta ñàkk la man ngay def lu baax lool lool lool nit ña nañ ko war a yëgee war koo gis war koo xam euh, buñ ko waneewul niñ ko war a waree ay professionnels itam wane ko niñ ko war a waree day mel ni loola dafay des loolu nag feeñ na fii tey ba tax na ñi ngi sant ginnaaw bi ñu nuyoo euh, Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne moo fi teewal xalifa général de Mouride di sant itam ci teewaayu Serigne Cheikh Ahmadul Badawi mi nga xam ne liggéey bii ñu doon wane moom mooy ki nga xam ne li ci aju ci wàllu xam-xam bi yépp ci moom ci loxoom lañ ko teg moom mbooloo mi mu ko àndal mu mel ni kon defe naa ne seen teewaay fii kàddu sëriñ Bachirou dana gën a leeral cant yi nga xam ne moo jëm ci ñi nga xam ne ñoo def liggéey bu mag bi loolu dañ koy bàyyeeku moom ñun li ci sunu wàll rek mooy ñu wane ne Masaalikul Jinaan lii bokk na ci ab liggéeyam mooy bi ñu ubbee jumaa jeeg léegi xëy na jaamu yàlla gi am na fi solo lool. waaye wàllu xam-xam bi itam ci dédicace bari na ay livres yoo xam ne dédicacé nañ ko fii ci barab bi te lii ci gën a am solo mooy dañ koo ubbil ñëpp waxuñu ab murit waxuñ keneen waaye am na ñoo xam ne sax ci jamaat Ibadu Rahman lañ bokkoon te fii lañ defee seen dédicace ak ñeneen ak ñeneen loolu di wane ne rek ëttu Serigne Touba ëttu ñëpp la ëtt ñëpp a ko bokk moo tax kon loolu itam dañ koy feddali fii rek pour nit ñi xam ne bokk na ci rolu Masaalikul Jinaan mooy képp koo xam ne am nga loo bëgg a def ci lislaam bëgg koo tam te te lu mel nii ñi ngi lay xamal ne barab bi sa barab la ndax lislaam rek ko tax a jóg te ñi fi nekk itam ak ñi leen fi teg ñëpp li leen tax a jóg mooy di euh, Sëriñ Tuubaa jàngale te mooy li mu jàngale mooy lépp la xajoo ñëpp ñooy njabootam kuy wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah rek ci bokk ci nga bokk kon ñi ngi sant bu baax ci taanu taamu gi ñu taamu defe fi jotaay bi di ci sant Euh, euh, waa ITV waaye di sant itam sëñ Ahmad Badawi mi nga xam ne ci ndigalu sëriñ bi moo ko sëriñ Bachir ñoom ñoo taamu ñëw defee ko fii ci Masaalikul Jinaan kon ñi leen di sant rek di gërëm xëy na sunu kàddu du mën a gudd ndax xëy na waxtu wi xat na te ginnaaw sunu kilifaa ngi fi di Cheikh Mouhamadul Bachir te moo yor kàddu gu mujj gi leneen li nga xam ne moo ci des lépp dana ko mottali ñun dañ doon sant rek ci turu euh, sëriñ Bachir Lo mi imam bi waaye ci tur itam alxaaji mbàkk yu fay defe naa ne itam ni ko euh, mbokk mi waxee léegi ñi nga xam ne ñoom la alxaaji mbàkk yu fay boole woon ak yéen defe naa ne taxaw nañ ci taxawaay bu am solo ba tey bis bi rafete nii kon ñoom itam ñi ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.